Adam mi ngi fa mais li ma ci gën a neex dañ ko bokk ak éleveurs yi dañ ko bokk ak tey jii waa Sénégal ndax la ngir taxaw leen ci jafe-jafe élevage am na euh, ay image yoo xamante ni euh, tey jii jëlee woon nañ ko fa euh, du tempin de pare ñu dem seetaan ko te ñëw aca mu ngi noonu euh, dañuy euh, jàll euh, comme ni nga ko defee sànga Salma Ibrahima Fall dalal nga Fadilou Keita muy président Adam Fadilou tey ñu ngi bi nga jotee li nga xam ne mooy kuréelu Adam bi yàggul bu matee 3 ak 5 mois wala 5 mois wala trois mois ci lay yem mais dañu gis ni euh, ci seen engagement bi ngeen am ak volonté bi ngeen am daar daar da ngeen a teg tey jii benn programme boo xamante ni éleveurs yi dinañ ci mën a gis seen bopp euh, gaawantu boobu lan moo ko waral. Euh, merci beaucoup Mbaye Balaye nga may amoon nuyuwaat plateau bi yëpp nuyu seen téléspectateurs yi nuyu mon grand frère monsieur Sarr mm-hmm. remercier la bu baax a baax ci invitation bi waaw. bi ñu faleek léegi mbay Balaye ça fait trois mois parce que suma jumul le 27 mars lañ defoon élection yi ñu remplacer monsieur Abou Kane bi nga xamante ne moo nekkoon président Adam am bureau bu bees euh, tey du question de gaawtu sax mais dafa am ñun suñu liggéey ni ñu ko organiser parce que aussi bon euh, bureau bi xam nga ne yow ñu bëri ay cadre lañ ay chef d'entreprise lañ euh, man mii di wax ak yow directeur la caisse de dépôt et consignation dañoo newoon au lieu que ñuy génne ay programme di ko def un peu n'importe comment dañ liggéey ci document d' orientation stratégique. Mm-hmm. maanaam ñu ko tuddee dynamique deux mille vingt cinq mooy fii ba deux mille vingt cinq incha allah fan lañ jëm. ministre bi barki démb bi may jaaxawlu président Macky Sall di ko wax ñun suñu ay doléance bi ministre bi di tontu dégg nga ni mu wax sunu document d' orientation stratégique boobu au président de la république ne ko directeur de mm-hmm. moom la fa yónni woon mu toog ñun toute la journée. Mm-hmm. document boobu nag comme que day jël temps. ci élaboration am. dañ ne comme que ñun mënuñoo toog ñàkk def dara nañ ci jukki quelques programmes teg ko ren gis nga jafe-jafe yi am ci wàllu élevage alimentation cher na xar cher na. Mhm. dëkk yi nga xamante ne Sénégal foofu loonu yaakaaree xar aussi fu mel nii Mali. Mhm. am ay restrictions CEDEAO yoo xamante ne dañoo ñëw gën a jafe gën a yokk jafe-jafe yi. Mhm. donc ñun en tant que association boo xamante ne dafay liggéey. ci wàllu amélioration de race nga xamante ne loolu. ay mission d' intérêt national d' intérêt général la buñ ci amul woon taxawaay rek te association bi du amati benn crédibilité mhm. boo fi xëyee di waxati dañ naan yow amoo benn njëriñ ndax askan bi nga xamante ne moom nga fi censé nekkal mhm. éleveurs yi nga xamante ne ñoom nga fi censé nekkal mhm. euh, état bi nga xamante ne moom nga censé jàppale ci li nga xamante ne da koy liggéey ci wàllu agriculture ay élevage bañ nekkee ci ay jafe ñoom ñëpp amoo ci taxawaay bi nga xamante ne moom moo war raison ne ren au-delà du fait que dañuy am ay membres yoo xamante ne yow xam nga leen bu baax kenn ku ci nekk day def opération tabaski mm-hmm. am na ñu ciy jaay ñoo xamante ne dañuy jaay ba dix mille ñoom kese mm-hmm. association bi ci boppam dafa amoon rôle taxaw ñëw wane yoon. maanaam teg yoon boo xamante ne ëllëg au lieu que ñuy am une deux trois personnes yoo xamante ne dañ ciy engagé wu. mais fexe ba sorte ñu ñu mobiliser lu mat ay centaines nit yoo xamante ne désormais. dañuy jublu opération tabaski loolu moo waral ren sunu taxawaay ci opération tabaski bi. macha allah euh, dégg nga ni mu waxee euh, Salma euh, looloo waral seen opération tabaski bii ren tey éléments yi dafa mel ni pare na du temps dem pare rek ñu seetaan ko première édition spéciale daral tabaski adam mooy ki ko organisé muy innovation te di ñaan yàlla def ci réussite totale ndax tey dañoo jàpp ne lépp loo xamante ne day ñoŋal élevage bu Sénégal vraiment dañ ciy dañ ci kontaan Mbaye première édition spéciale daral tabaski Adam Pape Ousmane mu nekk association bu mag nekk nday association yi tey jii initié lii tey jii Pape Ousmane boo ñëwee fii di nga gis ni tey élevage amaat na beneen gëdd. waaye élevage laadum tey ji wane na beneen euh, xaru kanam pour fas yéene taxaw ci li nga xam mooy tabaski bi. macha allah mu mbokk yi euh, vraiment di yoo xamante ne vraiment ñoom vraiment seen gox te lu nekk ci dëkk bi vraiment xam naa dinañ ci waxtaan ak vraiment Omar Cissé pour gën a yaatal. dinañ ko jaay nga xamante ne tey ñoom wax dëgg ñëw nañ. ñu yombalal leen mbir mi. Euh, vraiment ñu dugal seen i xar euh, vraiment exposé ko bu vraiment nekk ci vente bi. Mhm. nga xamante ne ñu ngi waajal ko. Euh, tey jii dañu ko def ñaari partie yoo xam ne Pape Ousmane fii xar yi nga xam ne ñoom la ñuy jaay tabaski yi ñoom lañ fi exposé ak géniteurs yi mais wàll gële Pape Ousmane éleveurs ñoo ñëw exposé fa andi seen i xar Pape Ousmane. macha allah vraiment tey nag li nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo xar ngeen ko waxee ñaari pàcc ay xar yi nga xamante ne ñu ngi leen di jaay mais li ci ëpp solo mooy ñaareelu pàcc bi. Euh, fii nag la laadu mi nekk juste rek ngir képp koo xamante ne yaa ngi ñëw euh, di jënd si xaru tabaski euh, bu la laadum ñore vraiment di nga mën a ñëw def recrue bu baax a baax a baax macha allah nga xamante ne lu ñu lu la. tey boo ñëwee fii di nga fekk bergerie maam Fallou macha allah boo waxee rek sa xel dina dem bu baax a baax a baax ci. Tafa Diallo euh, borom Ramadan macha allah mais tey nga gis fi exposition yu am solo ay añal mais Ramadan tamit ñëw na vraiment ay produits finis euh, moom la indi moom euh, bergerie Mame Fallou te ñu gën koo xam mu nekk lu ñu rafetlu donc di nga ñëw tamit xamante ne Omar Omar Kane macha allah Serigne Moustapha Gueye nga xamante ne boo ko waxee rek xel. dina dem bu baax a baax eh, ci taxawaayam ndax jàmbaaram nga xamante ne vraiment sëñ Moustapha mu ngi liggéey liggéey mucc ayib borom waaju baax mais saa su nekk nga xamante ne liggéey ay xar yu sotti ba bu ñu leen évaluer rek macha allah dina def ay résultats yu am solo yu ama ama am solo euh, tey de dañuy naan daal na ñëpp jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax. ndax tey mbir moom bu tàmbalee vraiment courage moo la koy may vraiment ñu ngi ñaan lépp. bëri donc boo dernier moment maa di dernières heures la ñuy xam ndax xaar dina moo la jox loolu c'est un point le deuxième point moo que ne ñun dañu nekk association bu mag muy ADAM. donc ñu am plus de vingt ans d'existence nekk l'une des associations les plus grandes en Afrique en en matière de mouton donc nekk des éleveurs qui se disent professionnels donc c'est pas normal que Adam di absent de la fête du mouton donc c'est pas normal. donc bi ñu defee jàngat yooyu yëpp ñu gis ne pourquoi pas initier un projet du genre opération tabaski daral pour rendre accessible le mouton de de de, de tabaski à toutes les bourses pour aussi participer à l'effort national dans ce domaine mooy lan l'autosuffisance en viande de boucherie et aussi à l'accessibilité de la viande de boucherie euh, de la viande de mouton. de de de tabaski voilà donc loolu noonu yëpp dafa nekk loo xamante ni ay problématique majeure la au Sénégal te ñun en tant que éleveur dañ ci war a taxaw donc loolu moo tax euh, ñu initier projet bi. Euh, tey euh, côté parce que man xaw naa ko yëg yéex naa ko yëg lan moo war. waaw comme vous le savez nous sommes un nouveau bureau on prend nos marques petit à petit. ñu ngi ci di gérer affaire yu bëri en amont loo xamante ni vraiment c'est dans le fonctionnement euh, de l'association yu ñu war a yu ñu war a defaraat lu bëri donc on a aussi un programme très chargé ci Euh, gis nga kooku mooy Omar Cissé mhm. nga xam ne mooy secrétaire chargé marketing et communication bu Adam euh, tey euh, amoon nañ waxtaan wu am solo boo xamante ni amoon nañ ko foofu di ci jaajëfal nag ci image yooyu waa Trio bi TV tim la boo xamante ni ñu ngi bay seen waar ci élevage bi tey ñoom ñoo ma ja yombalal li nga xam ne mooy image yooyu muy Pape Ousmane ak Serif Mbodj ma leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mais seulement tey seetaan nañ image yu Fadilou mhm. nga Euh, tey li Omar Cissé wax mais euh, initiative bi. Mhm. c'est une première euh, tey Adam def ko innovation boobu foog ñu ñëwaat ci Fadilou. Mhm. Mhm. merci beaucoup Mbaye may gërëm Omar Cissé comme ni nga ko waxee rek sunu chargé de communication et marketing. ak ki nekk si am soxna soosu ngeen di seen di jatu Koulibaly ni ngay gisee noonu muy toppatoo wàllu xar mais kilifa gu mag la. Mm-hmm. parce que financière la. Mm-hmm. di liggéey ak ay institutions yu mel ni banque mondiale ak yooyu. Mm-hmm. donc maanaam li ma bëgg wane foofu rek mooy casquette professionnel casquette ou cadre de l' administration wala lu mun a nekk day méngóog activité élevage. donc nit yi waruñu complexé si def si def. si def élevage. élevage éleveur professionnel. j'ai vu euh, ah. souvent dañuy wax éleveur professionnel parce que euh, c' est juste pour dire rek que ni nekkuñu si ay amateurs. Mm-hmm. xam nga souvent professionnel mooy xaw a opposé wu ak amateur maanaam looy def bu ñu ne kii seen éleveur du dimanche mooy xam nga parfois da koy def parfois day bàyyi toppatoo ko mm-hmm. mais ñun xar ñu yore ak yoon bi ñu jël si si si si liggéey si mm-hmm. participer au moins si liggéey bi ñuy def fii au niveau du Sénégal dafa laaj beaucoup de professionnalisme parce que y a beaucoup de choses qui autour du mouton waaw léegi da ngay dem si ay kër yoo xamante ne xam nga nit bu amoon 10 millions mën na ko investir quelque part mhm. mais mbay xam na ni am na ay yoo xamante ne on les a construit à coût de centaines de millions mhm. am na éleveurs yoo xamante ne day jënd fan yi passé rek am na suñu benn xarit bu jaay benn xaru 14 mois ak 40 millions mhm. xam nga loolu c'est des investissements c'est des financements c'est beaucoup de choses en même temps voilà loolu moo tax rek ñuy wax souvent le terme euh, professionnel parce que association bi aussi xam nañ ko bu baax a baax. man j'ai eu à occuper beaucoup de postes mais su may wax rek sama ancienneté man depuis 2010 maa ngi nekk membre donc def naa si association bi 12 ans. Mhm. en temps on a été des membres de bureau j'ai été pendant 5 ans commissaire aux comptes et donc association bi lépp lu ci nekk. comme lu baax lépp lu si nekk comme loo xamante ne war nañ ko améliorer xam nañ ko bu baax a baax mais aussi opération tabaski bi xam nga ne dafa yàggoon nekk demande éleveurs yi mm-hmm. déjà am na aspect mën a may éleveurs yi ñu seen produit mm-hmm. am na présence boo xamante ne sunu positionnement association moo ko laaj en tant mm-hmm. que acteur boo xamante dafa war a indi contribution ci effort yi nga xamante pouvoir public dañ koy def dans ce domaine là yëg nga euh, a bi te ni lutte contre le déficit mm-hmm. en viande de boucherie en mouton tabaski ak favoriser culture fourragère dafa mm-hmm. nekk ci seeni axe majeur yoo xam te dañ ko jublu donc mm-hmm. état bi nag su tourné ne yoon bi mu jëloon baax na mais mën na ko modifier ci mhm. gën a dëggal boppam ci wàllu élevage ak agriculture ndaxte Covid bi fi jaar won na ni ñun mhm. dañu war a gën a produire waaye won na ni ñun suñu doolee fi mu nekk mooy agriculture ak élevage ñoom ñoo ko bind noir sur blanc mhm. donc état bi su jubloo foofu ñun ñi nga xamante association lañ yore dañu war a positionné wu de que dinañ mën a accueillir dañ mën a porter projet yooyu nga xamante ne état da koy am pour le bénéfice exclusif de nos membres éleveurs profité rek wax ne balaa ma koy fàtte ne tey par exemple le ministre incha dina ñëw entre 17 et 19 heures c'est suñu fële suñu point de vente bi. Mhm. ci esplanade stade Léopold Sédar Senghor nga xamante ne on y a couvert. 1800 mhm. mètres carrés. Mhm. Euh, tey jii euh, demande bi bëri na euh, ci askan wi kenn ku ci nekk na nga bëgg xaru tabaski mm. yéen Adam ban programme la préparé pour mën a satisfaire tey jii mënu la satisfaire ñëpp mais mm. minimum tey mu sensibiliser tey ay ay membre pour ñu dem defee opération tabaski mais ak xont bu cher bi mm-hmm. ak dundug seer bi aliment bu cher bi yan préparation la ci Adam fa yéene préparé ci loolu Fadilou waaw bi njëkk bi njëkk mbay balaay mooy déjà contexte bi ñu nekk nii mooy cherté aliment bi. Mhm. vraiment euh, tey saaku mboq boo ko doon jënd xam ah, nga yaa ngi ko doon jëndee ay onze mille sept cent cinquante onze cent. Mhm. léegi mi ngi bët dix neuf mille vingt mille. Mhm. loolu c' est insupportable pour les éleveurs. Euh, li ñu war a njëkk a wax rek mooy produit de substitution sax daanaka amatul parce que boo amoon aliment mu cher da nga koy bàyyi dem uti euh, ay mboq xont yoo xamante ni yaa koy jaxaseel sa bopp lu mel ni ay mboq ak ay ñebeek yooyu mais benn boo ci laal. dafa cher à donc éleveurs yi ko mais am na lu gën a cher aliment bi ngooñ bi moo gën a cher aliment bi ngooñ bi sac bi on te à 5000 te ngooñ bi boo ko taasee pressé ko soo à 5000 donc imagine tey saako xontu nga mun ko am 40 kilos yi nga mun ko am entre 10 000 11 000 ba 12 donc aliment granulé bi ñuy defee usine sax moo gën a cher ngooñ mi nga xamante normalement ñax kese la donc loolu du du du ñun dafa am défaillance bu am sunu milieu bi. Mhm. mooy tey mënoo nekk éleveur. Mhm. nekk fii yow aliment bi chaque jour muy cher ci yow te bu ñu nee foire nga organiser foire à coût de dizaine voire de centaine de millions. yoo xam nga bu baax li may wax. Mhm. donc éleveurs yi tey. war nañu mën a bay association yi président d' association yi war nañu xiir seen membres yi pour ñu bay mhm. ñu ngi wax waxu Ukraine Ukraine li fa nekk ren day gën a graaw déwén mhm. parce que ren am na surface yu bëri ndax guerre bi emblavé wuñ ko mhm. donc seen surface yu ñu bay wàññi nañ ko donc li ñu mën a produire day wàññee ko forcément li ñu mën a jox àdduna bi tamit dafay wàññee ko donc ñun tey ren amuñu droit bàyyi benn parcelle de terre au Sénégal moo wax leen ne ku am suuf mën ko bay na ko bay waaye ku mënu ku am suuf aussi mënoo ko bay nañ fexe ñu koy récupérer ñun association bi nga mettre ko à la disposition incha allah ñu jëm ko emblavé jëm ci jëm ci liggéey mais tey euh, Fadilou euh, mooy li nga wax sànq euh, éleveurs yi man pour ñu dem bay lu jafe la. Mm-hmm. mënuñoo dem mën nañoo tabax bergerie ay trente millions quarante millions. Mm-hmm. mën nañ jënd xaru quarante millions te mënuñoo dem eh, bay pénicom wala maral farfa. Mm-hmm. est-ce que loolu bu ñu ko deful dina mën a yomb tey pour nga mën a ngeen mën a atteindre seen objectif. ci tabaski bi non du yomb mais aussi dafa am lu bëri loo xamante ne ñun ñu ngi commencé ñu koy commencé résoudre. yow fan yii seetlu nga ni ministre bi saa suy wax maintenant. saa suy posé maanaam dina si tudd bi ñu ngi koy jëkkalaat muy benn affaire deuxième chose mooy dégg nga le jour directeur l'élevage bi ñu toogee émission bi ñu nekkoon vendredi mhm. euh, muy wax wàllu euh, fonds stable mhm. fonds stable benn fonds la boo xamante ne day jàppale élevage mhm. nekk fii depuis une vingtaine d'années éleveurs yu bëri xamuñu ko déjà war nañ liggéey ci gën a informer éleveurs yi ci BND fonds six fonds JIP euh, crédit agricole ak bépp type de financement boo xamante ne dañ koy def association yi war nañ mën a am financement yi war nañu autonomiser éleveurs yi en transformant nos bergeries là mhm. en des sociétés unipersonnelles kenn ku nekk mhm. bu la association bi jàppalewul sax nga mën a jógal sa bopp mhm. dem uti ay financement mais fonds stable bi aussi yëg nga ni président de la république demandé nañu doté ko ren DER def na fa su ma juumul lépp trois cent xaw ma cinq cent millions ci opération tabaski bi donc ñun bu nekkee fonds stable bi teg nañ ko te le jour souligné naa leen quelque chose qui me semble assez important mooy nañ bàyyi ba tabaski ñëw ñuy génn xaalis di ko jox éleveurs mhm. parce que tabaski bu ñëwee nga génn xaalis jox ma ko man damay xool ndax Salma day jaay xar bu ko doon jaayee cent mille dama mhm. koy jënd cent mille teg mille dem di ko jaayaat loolu comme yow tey tabaski jot si ñuy jox nit ki xaalis xaalis bi dañ ko war a jot bu yàgg balaa tabaski préparé mm. dem defari xar yi mm-hmm. parce que comme li ma la ko waxee su ma ko jotee période tabaski mm-hmm. damay def lu ñuy wax spéculation te spéculation mooy cheeral mbir yi mm-hmm. damay jël mbiru nit buy jar cent mille teg sama dix mille wala sama vingt mille jaayaat ko pour mën a spéculer ci saa si am xaalis loolu spéculation lay indi loolu mooy tax xarit yéeg dañu war a jël association yi doté leen nga ñoom en amont de l'affaire un an a xont bi pour terminer sur cela ñun am nañ projet wu taxawal suñu minoterie mhm. man ministre Moustapha Diop on en a parlé mhm. euh, récemment mhm. ba mu ne sax nañ ñëw mu positionné ñu ci zone agro pastorale côté Louga ba nale ba pare jàppale ñu pour ñu monter sunu industrie carrément. te mhm. yow xam nga ni am nañ membre boo xamante ne mi ngi defar aliment. Mhm. am capacité wu def dix mille euh, dix tonnes. Mhm. par jour su ko benn membre mënee association bi na ko. waa délégation à l'entrepreneuriat rapide aussi may gërëm bu baax Abi bi nga xamante aussi sama collègue la woon CDC. comme ministre Moustapha Diop ni mu ko nekkoon. waxtaan nañ seen ay services aussi nee nañ pare nañ pour accompagner ñu pour ñu am suñu minoterie bopp. Mm-hmm. parce que aussi Superdome bi ñuy def di si def ay milliards de chiffre d'affaires. Mm-hmm. ki ñu koy defal ñun kese la suñu communauté bi lañ koy defal. donc war nañ ko mën defal mais na l'a dit waaw d'après les statistiques yi ñu jotagum actuellement. li fi doon dugg ci xaar quand je mooy man mi nga xam ne sama loxo jotul sama ginnaaw. ma am sama njëkk war a dem jënd sama xar est-ce que dinaa ko mën. la première chose mooy dis mise à bi maanaam parce que boo gisul a jënd mm. mooy déjà li fi doon dugg ci xar ci date bii maanaam à une semaine de la tabaski. Mm. nee nañ seen statistiques yi ñu jot wane na ni ils ont reçu plus. Mm-hmm. de sujets jot nañ lu doy loo xamante ne sénégalais yi doon jug di jënd heure bii. Mm. ku si nekk war nga mën a am xar ça mm-hmm. c'est une chose. Mm-hmm. la seconde chose aussi mooy njëkk yi. vraiment njëkk yi ñun ñii rek suñu bopp am na nañ fa xaru cent mille ba jëm ci ay millions seetlu nañu nag yu mag yi gaaw na jeex trop par exemple démb rek am na kilifa gojaar xam naa mbay jot na ko dégg mhm. jënd fa trente mouton laadum à coût de plusieurs millions mais xar yu ndaw yi aussi mi ngi jeex daanaka parce que yu ndaw yi aussi seen clientèle souvent koy jënd ils viennent que affaire tabaski dafa am benn bataille psychologique bu si am mhm. est-ce que xar dina am est-ce que day wàcc est-ce que léegi du ma sama xaalis ak yooyu mhm. moo tax yu ndaw yi am na mais xar yu mag yi aussi am na ba pare njëkk yi vraiment c'est am na njëkk yoo xamante ne vraiment am na am na sax ñuy spéculer parce que nga gis xar boo xamante ne njëkk li 100000 la war a nekk ni nga ñëw ñu lay laaj 150000. Mm-hmm. mais je crois que boo patienté wër ci dalali bu baax di mën a trouver xar boo xamante ne dina méngoo est-ce que un jour ci Sénégal boo xam ne dañuy produire suñu bopp xar mais pas di jéggaani ci dëkk yu ci mel ni Mali ak Mauritanie. ñu gën a metti mm-hmm. en tant que éleveur te aussi les premiers responsables aussi ñun la loolu dañ koy wax dañ koy nangu parce que tey bu ñu ne déficitu xar dafa am Sénégal Sénégal dëkku yar la maanaam kër goo dem soo moytul di nga fa fekk même bu dee ñaar wala ñetti xar di nga ko fa fekk donc éleveurs yi ñoo war a fexe nañu organiser mbir mi rek association yi baax na parce que on est comme association bu mel ni Adam une un millier de personnes c'est bien mais li millier de personnes di def bu ko 15 millions 17 millions de sénégalais xamoon war cee mën a gën gaaw a résoudre mhm. maanaam ñun am nañ objectif sunu xar yi ñu yore. Mhm. dugal ko améliorer la race locale mais sunu agrément yi war a ñëw ba ñu war a mën a importer ay bête bëgg nañ intéresser les ménage nga xamante ne kenn ku ci nekk si la nga doon def da koy doubler pour yokk production bi. Mhm. mais gëm naa ni éleveurs yi bu ñu leen yokkalee financement. Mhm. fexe ñu accéder si ni ñu si war a accéder ñi si war a jot jot si. gëm naa ni déficitu mouton lu ndaw lu lu yomb résoudre la biir Sénégal parce que ñun am nañ capacité. Euh, ñun tey am na éleveurs yoo xamante ne am nañ suuf. am nañ loo xamante ne mën nañ ko sécuriser. tey bu nekkoon financement ñëw na fu mu war a ñëwee bu ñu investir déwén kenn ku ci nekk ma mbay xam na li may wax suñu groupe yi ñun kenn ku ci nekk war na mën a produire cinquante ba cent loolu loolu du problème mm-hmm. voilà wala aussi euh, bu ñu fexe woon aussi ba am ay suuf yu doy mm-hmm. ba bay mën a am mun na am alimentation bi su yombee rek dina tax mën a jël xaar aussi di ko dundal pour préparer aussi opération tabaski dina nekk loo xamante ne damay jeexalee mm-hmm. ko jaayee prix yu extraordinaire ren par exemple nit ñu ngi fay ñëw am possibilité jël seen laadum casser prix bi pour mën ko jox sur le marché ñenn yi di ko jël di ko def ay géniteur ci yenn gox goxaat yi mais ñenn yi di ko jël di ko mën a yóbbu tabaski parce que xar aussi finalité bi mën ko lekk moo tax ñuy ñuy ñuy mm-hmm. ma lay dégg chaque fois da ngay ne euh, ñun suñu association bi après nga ne waa mais éleveurs yi ça veut dire bëgg naa xam ndax da ngeen def élevage walla opération tabaski kese waaw association bu mag lañ merci beaucoup c'est, important association bu mag lañ boo xamante ne comme mbay mbay la ñu ko waxee am nañ euh, lu pour vingt ans d'existence euh, ay éleveurs lañu carrément association bi di nga ci fekk les plus grandes fermes du Sénégal ñuy def ay poulet ñuy def embouche bovine di nga ci fekk aussi les plus grandes écuries du Sénégal écuries ñu yore ñu yore fas yeeg yooyu def ay courses ak yooyu mm-hmm. di gagner di am ay trophées ñu ngi ci biir association bi di ngi fekk ay grand businessman loo xalaat loo xalaat ci profil mu ngi si biir association li waral question bi mooy bëgg naa xam si si kii votre clientèle potentielle hmm. waaw suñu clientèle comme ni mu ko waxee rek c'est le grand public c'est le grand public hmm. xam nga ñun tey bu nekkoon buy jar dix millions quarante millions ça peut pas être euh, non xam nga opération ponctuelle bi ñuy wax opération tabaski la. non man je parle pas de cette opération ponctuelle. Mm. parce que bu may dégg ngay développer dayoo bi nga xam ne moom la am association bi moo tax ma laaj la euh, clientèle potentielle bi nga xam ne moom ngeen am parce que dafa am lu ma bëgg a xam. Hmm. waaw clientèle moom laa lay expliquer xam nga clientèle potentielle bi c'est le grand public même rek ma raisonné tuuti comme ça dina gën a leer. Hmm. Hmm. clientèle bi ñu am c'est le grand public. ñun dañuy liggéey di jël xar ay éleveurs parmi nous di gagner ay marché état pour insérer ay géniteurs. ñu koy jënd benn bu nekk cinq cent mille ça n'a rien à voir ak mouton yi nga xamante ne c'est des exceptions comme ni mu amee ci fas am ci nag ñu mën leen jaay à coût de dizaines voire de centaines de millions am ci pigeon mhm. loolu c'est une chose la seconde chose mooy ñun on s'adresse au grand public parce que am na yenn opération yu bëri yu ñuy def yoo xamante ne c'est des activités yoo xamante ne c'est à destination du grand public war naa fi léegi ne li na benn programme boo xamante ne facilitation de l'accès au ladoum la loolu noonu mënoo ko def ba pare muy cher donc dañ koy subventionné pour mun ko jox au grand public wax naa fi léegi ne aussi li ñu bëgg mooy fexe ba ménage yi ménage yi nga xamante ne tey Sénégal booy xool SMIC bi revenu minimum bi ay cinquante mille soixante mille la booy wax ak ñoom boo fexee boo bëggee jot ñu jot jot xar wala ñu jot ay euh, bett yoo xamante ne en tout cas mun na améliorer cheptel local bi da koy mën a defee si njëkk lu yomb parce que bu nekkoon damay développer ay programme mun naa la expliquer ñun yan mécanisme lañ am ba ki nga xamante ne sax revenu yom dafa ndaw naka lañ mun def ba mu jot ci ba mu jot ci xar yi parce que xar dafa am qualité yu bëri bëri bëri d'accord ça veut dire que yow yaa ngi confirmer éleveurs yi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne am na fi ay association yoo xam ne ñu ngi toog li ñuy xaar mooy marché état surfacturation yi yéen ngeen bénéficier que dégg naa ngay wax PAP 2 bi nga xam ne état bi am na ko dégg naa nga wax ni entrepreneurial boo xam ne état buy génnee yenn marché yi yéen ngeen man cee euh, bénéficier alors que am na à côté benn éleveur boo xam ne dafay topp xaram yi léeg sax euh, fu muy aménager pour ñoom ñuy am fu ñuy nekk. Mhm. Euh, jafe-jafe la alors que yéen accessibilité bi ngeen am ak li nga xam ne moom ngeen am ci facilité ñoom amuñu ko. ñoom ñoo jàpp ne yéen ay association la yoo xam ne marché état moo leen fi tax a pour commencer sunu association. Mm. musul gagné marché association marché état muy benn dama ne la am na ay éleveurs yuy gagné marché état suñu association ñun Adam la plus grande association bu nekk si millier laadum bi musul gagné marché état am na yenn yenn éleveurs yu koy yu koy gagné d'ailleurs mm. j'en profite pour dire que man li ma gëm li nekk si yéen j'en profite pour dire que li ma gënal mm-hmm. mooy lu toll ni marché état lu mel ni ay milliers de géniteurs bu ñu koy jox association lañ ko war a jox mais waruñu ko jox benn man loolu laa gëm muy la première chose la seconde chose wax nga ñi nga xamante ne ñun dañoo am ay ñun amuñu benn activité parce que la moo tax tey ba ni ma toogee ni yow à part ñu am cérémonie ministre ñëw fa kenn mosu ñoo dimbalee un franc. waaw mais ñëw jënd ci yéen non non non li nga wax dafa am xool damay préciser question bi pour nga mën comprendre parce que sànq yaa ngi wax ne ne am na benn kilifa bu ñëw jënd xar ci fi ngeen di eh, jaayee. ci li ñuy nemmeeku mooy que ne fii parce que opération tabaski yenn institution yi dañuy joxe li ñuy jëndee euh, xar léegi dañu am seen cible c'est comme par exemple ñu nekk dans l'immobilier construction stade yeeg ki nangam yu ni dañuy defar seen facturation am client am koo xam ne ci moom la ñuy jënd lépp luy matériel est-ce que tamit c'est pas la même chose avec votre association. alors laa expliqué c'est pas du tout la même chose. Hmm. ñun dañuy exposer ay produits. Hmm. amuñu contrat ak kenn. daf fi am ay éleveurs yoo xamante ne dañoo am marché parce que dañoo yàgg def opération ñun c'est la première fois ñuy def opération tabaski donc mënuñoo am loo xamante ne ñi fi nekkoon ay 10 ans 15 ans di ko fi def amuñu ko fi ku gis nag ñu teg ay xar ñun ñu ne suñu membre yi képp ko am xar booy jaay indi ko gars yi ñëw indi seen xar yi nit ñëw mun na am li mu doon amee moom day wàññeeku parce que éleveurs yi dañuy privilégier association bi ndax peut-être gis nañu bi elle est jàppale ci li muy mm-hmm. ñooy ñooy jugee fële ñëw di jënd si ñun suñuy xar bu ñëwee ñu waxtaan bu ñu ñu jaay leen ko. encore que c'est pas l'association qui vend. dañuy teg dispositif bi parce que boo gisee exposition bi dañoo def benn exposition boo xamante ne. dañu fa def ay laadum yoo xam ne dañu ko exposé xam nga la moo tax. pour financer opération bi ñun ñoo jël ay box 24 box jaay leen benn bu nekk 250 000 man jël naa benn Omar Sy bi doon wax jël na benn ñeneen ak jël nañ gis nga xaalis bi ñu jëlee foofu noonu. mooy financer chapiteaux jël à coût de mooy financer ñi koy sécuriser mooy financer alimentation wu xar peut-être xaalisu association bi sax ñun laaluñu ko mais innovation lañu indi ci financement pour mën a may suñu éleveurs ñu génne xar yi mën koo jox le grand public léegi nag ñun facile en terme de facilitation ba fi ñu toog nii mësaguma dégg te Adam xam naa ko bu baax parce que comme ni ma wax rek def naa cinq ans commissaire à compte document yi maa ko doon yore di si liggéey ñu ne jox nañ ñu x nombre de million wala jox nañ ñu marché biir Adam musul am léegi ñun li nga xamante ne moom la ñuy liggéey boo ko comparé ñi nga xamante ne dañuy def élevage extensif ñun dañ lay xamal ne am nañ suñu wax naa la def extensif extensif a mag yoo xamante ne may na leen ko ñu ngi bay ci biir mooy tey dañ koy def fii ci biir dëkk bi mais ministère bi am na benn programme boo xamante ne ministre bi mu si boobu moo ñu ko wax bi ñu demee mu invité ñu këram daara nañu président Macky Sall mi ñuy waaye signal benn décret boo xamante ne daf ñuy waaye jox ministère bi yoo xamante ne dañ koy dédié à l' élevage maanaam képp ku soxla zone euh, suuf yoo xamante ne da nga fay dem def fi spécialement élevage ministère bi daf la koy jox mais loolu day dafa jiitu li ko jiitu mooy ñun dañoo demandé woon guichet unique parce que comme sànq ni mu ko waxee rek am na lu bare lu fiy xew ci wàllu élevage mais éleveurs yi yéguñu ko parce que information yi dafay manqué da ngay romb ay structure di leen xool nii mais ay nit nga fay gis ñu dugg di génn di lijjanti seen problème mais xamoo réellement structure yooyu lan lay liggéey raison pour laquelle ñun dañuy proposer ministère bi mu fexe ba nu mu amee guichet unique ñu bañ am interlocuteurs yu bëri DER FONGIP FONSIS ministère de l'agriculture ministère de l'élevage dafa bëri ci éleveurs yi parce que pour nga toog kenn rek dafa jafe donc bu a mën a boo xam ne dañ ko soxla tout am na ay possibilité association bi bénéficier gu ci mais ñun ñu ngi fexe ba association bi positionné wu noo xamante ne incha allah dina si mën a bénéficier wu mm-hmm. Xudóor euh, mais Fadilou ba tey dañuy ñëwaat euh, ci fi nga daanelee ndax euh, Ali Salah Diop mu ngi ko doon wax ci cérémonie officielle cercle des éleveurs yi mu ne tey jii Macky Sall dogal na tey jii maire yi ñu jël li nga xam ne mooy suuf si jox ko askan wi pour ñu mën fa ne est-ce que tey jii loolu yéen a ngi ciy continuer def ci ay démarches loolu. bien sûr commencé nañ ko parce que dañu bëgg a liggéey collectivité ñun on a un programme pour installer ay ferme de référence. Mm-hmm. déjà gisante qui est un grand éleveur monsieur Omar Sow mun nañu incha allah dinañ ci jàppale. Mhm. parce que amélioration des races bi ñu ko defee. Mhm. am sunu nag yi. Mhm. xam nga man dem naa salon de Paris gis samay bët. nagu mille neuf cent cinquante kilos. nagu presque deux tonnes. loolu c'est extraordinaire. amoon na bis toppoon ci moom il avait mille huit cent cinquante mhm. xam nga loolu du ay nagu caaxaan mhm. benn bu ci nekk bu ñu ko amoon fii nekk ba am ci benn rek ci race yooyu ñu mën a inséminer suñu race locale bi mhm. mun na am fa ñuy tollee deux ans pour mën a am yenn poids yi mun na am bu ñu tollee six mois wala un an ñu am ko loolu nag la ñu bëgg gis nga ferme de référence yooyu fa ngay préparer opération tabaski fa ngay bayee di jox say jur mais fa ngay ay amee nag fas xar bépp race boo xamante ne au niveau local boo ko tegoon par exemple chaque département képp ku fa ñu tëbal la saxaar képp ko soxla pour def insémination foofu ngay ñëw nga xamante ne de au niveau local. Mhm. dañuy améliorer ratio. TCB naturel. indépendamment de cela aussi. Mhm. am yenn problématique yoo xamante ne dañ ko mën a def maanaam lu ñuy wax encadrement technique. Mhm. naka la ñuy tey. aliment cher na yan produit de substitution nga mën a am ndax nga mën a composer aliments yi parce que am na loo xamante ne boo ko composé su baaxul dangay créer ay carence mhm. former waale éleveurs yi dimbali waaye leen parce que Sénégal comme ni nga waxee dëkku yarkat la mhm. bu jëlee xar yi nag yi gën leen jegal askan bi rek mun na am dinañ liggéey lu am solo am ñoo xamante ne ay milliers de têtes lañu am mhm. mun na am nagu mille et quelques kilos yooyu bu ñu ci amoon benn rek mu mën a améliorer seen cheptel boobu mun na am non seulement dinañ yokk seen nombre nag yooyu noonu da leen di yokk bu baax a baax a baax te loolu su yàggee rek. incha dina mm-hmm. dinañ dem ba du ñu amati yenn jafe-jafe yi. Mm-hmm. mais bëggoon naa mu wax ñu naka la gisee tey taxawaayu ministre de l'élevage est-ce que yéen ngi gis boppam ci politique. Euh, d'élevage bi nga xam ne mu ngi koy andi. waaw loolu moom bon man je tiens particulièrement amoon mon ak turu association bi yëpp à remercier le ministre ali Saleh Diop. Mm-hmm. li tax ma koy remercier c'est très simple ñun ku ñu defalul dara duñ ko remercier. ay sénégalais lañ am ay profession am ku ñu deful dara aussi ñu mën a téye suñu bopp mhm. mais ministre bi il est très réceptif mhm. ministre ah, bi waaw barkaat démb comme mu koy waxee rek bi muy tontu bi ma waxee après président tontu président de tontu moom mu war a tontu mhm. il a pris son temps développé lu bëri xaw ma naa xam mbay jot nga wax dégg développé lu bëri ci wàllu élevage ak li ñuy séq ak moom maanaam koo xamante ne la tey li ñu koy proposé lu bëri ci programme mi ngi koy def man dem rek la ma nit woo deux nit woo ne ma yaa ngi dégg ministre wala fajri mi ngi lay tudd foofu mi ngi naan yéen li ngeen def ak affaire yu mel noonu seen laadum bi et cetera et mm-hmm. xamante ne la mi ñuy déglu donc bu nekkee déglu nañu ba ñun li ñu bëgg def mi ngi ci taxaw mm-hmm. parce que ñun suñu nit yi euh, personnes yi amul solo en fait mm-hmm. ñun éleveurs yi nga xamante ne ñoom lañu àndal ak li ñuy soxla ñun pour mën a doxal nan ngeen proposer du concret mu déglu lu bëree bëri maanaam accès ci financement yi déjà parce que fonds stab ministère bi lañ ko jox bu ñu ko dotee nañ ko jox aussi nañ jox en bonne partie aussi éleveurs yi nga xamante ne tey dañoo am objectif yenn jafe-jafe majeurs yi Sénégal am comme ni ko Omar Sy waxee leen problématique majeurs yi Sénégal am ñu taxaw si muy accès au financement mm. mais soxla nañ encadrement technique maanaam soxla nañ suñu xam-xamu élevage ñu mm. yokkal ñu ko mm-hmm. mais aussi laado mi ngi dugg dans la sous-région maa ngi joxe mm-hmm. exemple l'autre jour ne président bi fi nekkoon man booye naa ko représentant des Nations Unies d'Afrique de mm-hmm. ko 15 xar mu ko Nigéria loolu c'était en 2015 donc Nigéria xar dugg na fa. Ghana délégation malienne. Gambie bi Gambie bi fi ñëwoon fan yii passé nee nañ ma jaay nañ ay xar mu dem ay laadum mu dem Ghana. Mali laadum yaa ngi fa. mu mhm. Mauritanie laadum yaa ngi fa. donc laadum si un produit purement sénégalais maa ngi wax ne ni ñu amee ceebu jën noonu la ñu amee laadum. donc dañu war a am suñu organisation sous régionale boo xamante ne mooy jël laadum di ko dugal fépp fu mu war a dugg ci àdduna bi parce que xar la boo xamante ne mën na concurrence xar yi nekk ci àdduna bi yépp te loolu état dafa war a jël def ko affaire am donc suñu waree def tournée nationale ak tournée internationale état bi war nañu mën a jàppale ci noo xamante ne dañ koy wëree àdduna bi mais aussi bu ñu waree standardiser wala homologuer laadum képp ku bëgg a jël ñu mën ko référencer jaarale ko ci ay normes loolu aussi état war na ci mën a rapidement ñu bàyyi Mbaye Sarr di féliciter seen association bi ci initiative bi ñu jël nii. parce que vraiment c'est une très belle initiative. te jàpp naa ne euh, jeune bu nekk également war nga mën a roy ci moom. Euh, lenn rek laa doon xawal parce que je pense que il y a un déficit de communication. bu ñu noté par rapport à l'association parce que li mu wax nii man franchement maa ngi koy door a dégg. te initiative yi ñu ngi koy jël ak lii également ñu ngi koy def nii. parce que dama doon jàpp rek ni comme ni Khoudoss waxee c'est une opération ponctuelle. pour la tabaski. Mhm. moom moo tax association bi judd. Mhm. effectivement pour man dama jàppoon ne c'était des des des éleveurs de luxe. Mhm. et qui les moyens et qui ont, sont en connivence avec l'État. di cap les fonds di di gérer seeni petits groupes pour jaay seen ay xar man noonu laa ko jàppee woon ah. mais peut-être li mu développé nii déjà c'est tellement important. Mm. donc moo tax la ma leen di ñaax peut-être ñu gën accentuer la communication. Mm-hmm. gën a askan wi. Mm-hmm. ñu xam effectivement euh, les mobiles de l'association. Mm-hmm. nga xam ne méngoowul ak état bi dara waa ci fànn yooyu noonu. je pense que vraiment maa ngi koy féliciter bu baax ci action yi vraiment lu rafet la ko ah. donc Mbaye dañ koy jaajëfal rek ah, ci présence am ci plateau parce que nag yeewu fajar ñëw c'est pas sax <laughs> dama bëggoon rek euh, une wax ne euh, euh, mon frère Sarr c'est vrai il a raison moo tax yow gis nga ni fan yi ni ñu sonnee ci communication digitale pour gën a wax ni ci ñun li ñuy liggéey mais ñun ñooy organiser les foires départementales yi ngay di gis Adam mooy organiser les foires départementales mais le grand saladam mooy foire bi ngeen di dégg chaque année ñu organiser ko CICES te ay marocain mauritanien wak ñëpp di ñëw di exposer foire internationale boobu aussi adam moo koy organisé dafa di ren rek suñu calendrier dañ ci dugal opération bu bees muy opération mhm. tabaski mais aussi am na yeneen événement yoo xamante ni incha allah du ñàkk bu ñu ko waree def ñu toog fii mhm. di gërëm suñu interlocuteur rek wax ne ñu ngi au niveau de l'esplanade du stade Léopold Sédar Senghor mhm. on a yàgg couvrir nañ fa lu mat 1800 mètres carrés tey comme ni mu ko waxee ministre bi war na fa ñëw suba am na yeneen kilifa yu fa war ñu ngi ñaax képp kuy autorité képp kuy simple éleveur wala képp ku mës a dégg laadum wala ku bëgg a dugg ci élevage dañoo visiter centre yi ba fu ñëwee allah bépp information boo soxla. Mhm. ci wàllu càmm ci wàllu mbay incha allah di nga ko fa fekk. Mhm. merci beaucoup <laughs> euh, waaw mi ngi liggéey xam nga tey buñ la falee jox la budget par force di nga liggéey parce que ay milliers de ay ay parce que ay milliers de milliards du ay caaxaan. Mhm. waaye est-ce que gis-gis bi. est-ce que fi ñu ko accès. baax na wala baaxul loolu dañ si discuter parce que bi ma jaaxaloo barki dem nee naa yoon bi ngeen jël si fonds baaxul parce que li ngeen di def day indi spéculation. ngi noonu euh, di la jaajëfal bu baax a baax Mbaye. waaw euh, Salma maa ngi am mbégte kontaan bu baax a baax di nuyu Fadilou. Euh, coono yi metti na leer na ma démb li dafa guddee. 3 heures du matin tëddee yi. ndax retrouvaille la ñëpp fa la ñuy daje. moom xam naa ni ñoom ñëpp fa la ñuy daje ba ay 3 heures du matin ku bàyyi ma tëj. Ah, incha allah